maaleykum asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum adduna asalaamaaleykum cher internaute de la Médina TV euh, ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek mbokk yi kon tey ñi ngi fi nga xamante ne moom mooy biir parcelle ñëw seeti la seeti le grand reporter chroniqueur Modou Anta fas yéene waxtaan ak moom si combat bi nga xamante ne moom mooy def actualité muy ci diggante Modou Lo ak ki nga xamante ne moom mooy Ama Baldé ginnaaw bi ñu leen nuyoo mbokk yi da ñuy topp ñu dugg rek waxtaan suñu gan Aïcha ginnaaw bi ñu leen nuyoo mbokk yi kon ñi ngi ak ki nga xamante ne moom mooy euh, Modou Anta Modou Anta ngeen gën koo miin mu nekk reporter nekk fi nga xamante ne moom mooy Guest Production di fa amal liggéey bu am solo ñu bëri ràññeeku sax ci liggéey boobu nga xamante ne mi ngi koy def dañ koy bàyyi mu nuyoo ak internet yi nga xamante ne ñi ngi koy seetaan su ko defee ñu wéyal suñu waxtaan Modou Anta nuyu nañ la am mbégte ñëw seet si la tey macha allah maa lay nuyu soxna Diarra di la jox sa wàccuwaay di nuyu waa Medina TV yëpp di nuyu sa caméraman di nuyu aussi tamit Baye bon ñoom ay taalibe Serigne Saliou lañ macha allah moom suñu soppe la ñu ngi koy béggee bu baax di ko jox wàccuwaayam di wax ne auzu billaahi mina seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim ñooy sant yàlla bu baax di jullu ci yonente bi di sant suñu ñaari waajur di nuyu suñu waa dëkk waa Lambaay Bawol waa Njeng waa Kër Abdou waa Thialène di nuyu sama mbokk Saalum Saalum yi aussi tamit di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax di la siyaar jaara di la jox sa wàccuwaay bu baax Aïcha am na solo Modou Anta ginnaaw bi ñu la nuyoo rek euh, balaa ñuy gën a xuus ci waxtaan bi duñ ne sax mu kan mooy Modou Anta parce que mm. yaakaar naa comme li ma wax rek ñu bëri miin nañ la à travers fi nga xamante ne fi lañ lay gis euh, bokk na itam ci li boo xamante ne am nga ko ci site yu bëree bëri marqué fa mm. say preuve ndax lamb li muy bëri ko ci xarañte fa macha allah ak liggéey euh, koy tegee ci yoon waaye rek mën nañ mën nañ la bàyyi rek nga gën ñoo wax suñ la doon mun définir lan la ñuy wax. Mhm. waaw Soxna Diarra loolu moom eh, dañ la koy gàttal yombalal la ko rek Modou Anta mooy benn xale boo xamante bi nii mi ngi juddoo bawal yaroo Saalum ñëw dakaar di liggéey comme niñ koy defee ak ay moroomam jaar ci métier yu bëri nag jaar ci métier am a def peinture joge ci peinture def tailleur jóge ci tailleur def ambulant joge ci ambulant def menuisier mason jóge ci aussi tamit nekk commerçant marché asalem moom laa mujjee def teg foofu noonu di jaay ay tisi di jënd ak a jaay jóge si loolu aussi tamit ñëw ci làmb bi ma ñëwee si làmb site bi ma njëkk a nekk arène bi point com la Pape Malick moom ma njëkk a jox micro macha allah ma bokk moom liggéey bi ba ni ko temps mayeetul bi ma jógee arène bi aussi tamit ñëw seen làmb TV liggéey fa liggéey bu am solo ci sama yaakaar di waale waa arène bi aussi tamit ñoom Xavier Tony Pape Malick ñoom bébé booy ñoom di leen ziar bi ma Euh, seen lamb TV aussi tamit abo Sarr 55 di ko nuyu mu ubbi benn site buy seen lamb TV zéro abone ñu fay liggéey ba yàlla dogal ñu jëm ci soixante-dix-huit abone fala fa sama wërsëg jeex ma jóge fa aussi tamit ñëw Gaston production di ci nuyu makkan bu baax di ko jox wàccuwaayam di nuyu père Gaston di ko ñaanal gudd fan ak wér yaram ñoom Mouhamed ñoom xaali ak xalil sama caméraman ñoom pa buba penda ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax di ñaanal aussi tamit makan beng bu baax parce que nit ki bu fekkee ne daf lay liggéeyloo di la jox alalam te du contrôler du la woone la vidéo dugg na wala vidéo dugut bu liggéey bi doxee bu doxut du ci xàmmee dara kon kooku nag jaar na buñ la dekkee micro nga saliyee ko bu baax ñu ngi lay nuyu di ko wax ne ko coow li bari na nag wax ji bari na mais sant yàlla bu baax moom liñ ko xamee lenn la moom côté boobu yoru fi jikkooy papaam papaam boo ko waxee lu ko neexul dakaar Buzz mu dem seen Buzz fayu mhm. comme ni ko Oustaz Modou Fall di waxee mhm. mais Maka nag nekk na nit koo xamante bi nii wax tuuti joob lu bari lay def kon grand ñi ngi lay béggee bu baax a baax di la jox sa waay jaara ci gàttal kooku mooy moo Anta aja moo daanta am na solo comme ni nga ko waxee bi nga ñëwee ci léegi eh, ci làmb yàggul yàgg na bu matee cinq ans ci ni ñu ko mën a tënkee rek cinq ans six ans yaakaar naa fin 2019 ak léegi kon mi ngi ci cinq ans jàpp sixième année mm. eh, nga eh, def loo xamante ne moo gën a jafe mooy imposer sa bopp moo doon tey wàllum communication saa soo waxee rek dañ lay bàyyi xel loo jàng la wala loo loo donn la wala loo foowee la talent bi ak tey xarañteef bi fan la jógee waa jaarat sant ci yàlla rek comme chaque jour dama koy wax sax des fois ci commentaire bi gars yi di ma tooñ naa ma yow kese jaaroo daara comme ñun ay donga daara lañ chaque jour dañuy chaque jour dañ koy dëggal di ko wax parce que donga daara yi tey boo dee xool fii ci Dakar ñoo fi nekk si béréb yu baax yi ñoo fi tekki ñoo fi jaar fan war a jaar parce que aussi tamit bu doon benn fan tamit muritu nañ ko sonn nañ ci ñibbi wax dëgg yàlla ci sant bu baax loolu noonu day dikk si yow rek jaare comme li may wax chaque jour xaar ma maa ngi maa ngi téléphone bi laay def silenceur comme li may wax chaque jour jaara xam lan moo gën a neex si àdduna hmm. nit ki nga xamante bi nii da nga juddu fekk ci kër gi situation bi dëgër trop sa papa nekkul ci condition bu baax sa yaay nekkul ci condition bu baax nga góorgóorlu ba nekk ci doom yi ñuy tudd ëllëg hmm. wala nga góorgóorlu tey ba bu boo yeewoon ci kër goo xamante bi ni sàkket la wala gittax wala ñax tey kër googu noonu nga góorgóorlu ba def ko tabax hmm. ak jaam bu nekk ak jullit bu nekk ak doom bu nekk loolu lay ñaan pour def ko pour way juram mën a siggi parce que ñun kenn ku ci nekk sa way jur wu jigéen moo la tax di liggéey ñu ci bëri rarement la ñuy tudd suñu papa yi ñu ngi leen di jégalu nag bu baax di leen siyaar mais yaay dafa gën a jege si doom ñun ñëpp suñu waay jur ñu mooy tax ñuy sonn mooy tax ñuy guddee tëdd moo tax ñuy teel a xëy moo tax ñuy guddee wàcc kon nag kooku bu fekkee ne condition yooyu noonu tey da nga bëgg mu nekk ci condition yu baax doo def lu dul maanaam sacrifié wu rek. Mhm. rey sa bopp si terrain bi rek. Mhm. pour liggéey rek Mm-hmm. ayca am na solo loolu mënul woon ñàkk parce que tey buñ jàkkaarloowee ak yow yoon la tamit ñu xam ci yow tuuti parce que am na ñoo xam ne dañ la seetaan rek gis la nga yor micro te xamuñu kan mooy Modou kan Anta wala Modou Anta fan la jaar donc day baax des fois ñuy xamal nit ñi ne ki ngeen di gis ci écran yi kat <coughs> kii mooy Modou Anta euh, dañuy boobu rek ñëw ci li nga xamante ne Modou Anta moo ñu yëkkati mooy combat bi nga xamante ne yaakaar naa ne moom la réew mi yëpp di xaar mooy ci diggante Ama Baldé mm-hmm. ak euh, Modou Lo combat bi Modou Anta ba mu taxawee léegi mu yàgg loolu mm-hmm. coow li bari loolu euh, ñaari mbëri daanaka li ci des euh, bëreetul yow en tant que chroniqueur nan nga gisee fisiquement ñaari mbër ak ci euh, euh, seen physique ak si préparation yi nga xamante ne def nañ ko. waa jaaro combat bi combat bu neex la combat bu yàgg tamit combat boo xam ne instant yii askan bi bëgguñu lu dul combat bi génn ci ci seen lodd bi nga xamante bi ni si la gàllu parce que combat mi ngi taxaw 2019. 2019 bi mu taxawee léegi yaakaar naa ne dox na fi. Mhm. parce que combat bi muy taxaw boobu fekkul may téye micro comprendre nga. te diggante bi gis nga temps bi nga xamante bi nii xew na fi combat bi mu taxawee ba tey cinq signature la ñu def ci biir làmb ji parce que signature bi nga xamante bi ni tey moo si njëkk combat bi dafa taxaw Jules Balde jëli avance face to face bi nga xam jàpp nañ ko seen TV boobu Modou dafa ñëw ba côté vingt 26 bi continue noonu si VDN bi boobu Ama Balde mi ngi ci saalu seen TV bi ak Jules Balde biñ toogee xaar xaar xaar Modou ñu ne problème dafa am xeex dafa am Modou Lo retourné wu ci la Zil Balde ñëw ne Ama Balde kaay ñu ñibbi. Mhm. première face to jàll na ci face to yi ma jàpp quoi beneen bi ci topp ñu ngi ko jàpp 25 décembre 2021 xaw ma 2022 mooy bi xoyantaan di bëri ak ki nga xamante bi ni mooy Baye Mandione. Mhm. si la Modou Lo ñëw bay jub rond-point arène nationale bi nee na ay booy dañ ko sànni xeer ci la dëppaat boobu Ama Balde mi ngi woon ci biir stade bi parce que boobu booy Balde moo doon bëri ak Cracks mhm. signature boobu mujjewul am. beneen bi ci topp deuxième bi nga xam ne jàkkaarloo nañ ko mooy mois de février lañ ko defoon fële ca EDK bi nga xam ne moo nekkoon euh, place publique boobu di suñu papa moom ko Demba ñuy jégalu tamit ci publicité bi bu baax a baax a baax foofu ci la ñaari mbër yi xas-xasloo boobay quatrième bi ci lañ waxante bàyyi beneen bi si topp mooy bi nu jàpp Gambie mooy cinquième face to face bi bu ci mujj mooy keroog bii nga xamante bi ni moom lañ jàpp TFM mooy sixième face to face hmm. yaakaar naa ne na ñaari mbër yi depuis boobu ba tey benn yoon lañ jàkkaarloo waxal ma wax mais instant yi xas-xasloo bi yëpp jeex na bëre moo fi des instant yi open de presse moo fi des parce que dimanche la 29 te la 29 nag buñ ci jógee la 5 moo ciy toge mhm. waaw sànni mu jeex ayca am na solo Modou Anta si leeral yooyu waaye rek euh, keroog ñu gis face to face bi nga xamante ne moom moom mujjee am comme ni nga ko waxee mhm. ñu gis promoteur bi déployé ci ay moyens organiser ko euh, de tele sorte que bëggoon na ñaari mbër yi même bu nekkee pour une première fois avant combat bi sax ñu jàkkaarloo parce que itam loolu contrat bi bokk na ci li leen tënk ci jàkkaarloo yi lu war a am la te mm-hmm. booboog léegi jàkkaarloo amul promoteur bi def ay déployer ay moyens euh, def ci lim ci war a def lépp sécurité bu doy am fa ñu gis absence li nga xamante ne moom mooy Ama Baldé yow en tant que chroniqueur chroniqueur noo ko jàngatee waa ni ma ko jàngatee nee na la rek promoteurs yi ñoo war a jël seen ay matukaay mm-hmm. CNG bi aussi tamit ñu sévère ci seen côté seen diggante ak bëri parce que promoteur mënul daan mbër promoteur bi frais d'organisation lay yóbbu CNG yóbbu reliquat am ay combat engagé wu engagé wu ak ménager yi nga xamante bi ñoo dox seen digganteeg mbër yi comprendre nga loolu nag waa CNG ñoo ci war a jël seen ay matukaay parce que combat bi bis bu jàllee buñ ajee Ama Baldé ci face to face bi ñëwul dinañ aj Modou Lo mhm. parce que Modou na ñaari signature yoo bi arène nationale beneen bi Sen TV la ñëwul Ama Baldé aussi tamit absenté na dernier face to bi nga xamante ne mooy mujj mhm. bul fàtte ne lii daloon na Boy Niang digganteem ak Balla Gaye numéro 2. Mm. mu mel Euh, promoteur bi amul lenn lu muy wax parce que nekkul Ama Baldé moo moo ko njëkk a def c'est pas la première fois Modou Lo ko defaat ko kon Ama bu ko defee amul problème est-ce que loolu noonu tamit yoon la le fait que Modou Lo def na ko rek Ama war ko def waaw fayantoo la gars yi wax tey bu dee Modou Lo ci circonstance yi gars yi dañ ne xeex dafa am mu dëpp mais bu fekkee ne Ama Balde gis ngeen nee na Modou Lo dafa absenté ñaari face to face ñëwul moom tamit benn la ñëwul Modou ñëwul ñaar Ama ñëwul benn mais làmb moo tollatul foofu soxna jaare gis nga làmb ñoom ñëpp di Modou Lo di Ama Balde di encadreur yëpp dañu war yërëm ñi nga xamante bi nii mooy promoteur bi jël xaalisam def ko ci làmb Luc Nicolaï essant yi ñëpp ko war a yërëm depuis 2019 mu investir par exemple laa la wax benn cinquante millions di ko dabu ji 2019 ba 2023 ñaata at la mhm. tey bu fekkee ne xaalis boobu dugal na ko ci beneen business dina ko jotaat mhm. foofu nag la war a mbër yi war a am benn esprit bu baax bi xam ne lii làmb la mhm. day jeex Balla Gaye numéro 2 ay Yékini jaar na fi Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo jaar na fi Balla Gaye numéro 2 ak Eumeu Sène jaar na fi combat yu bëree bëri yu ëpp coow guy gi jaar na fi combat ak Ama Baldé guy gi ak combat am ak Siteu jaar na fi tey yépp ci jàmm la mujj comprendre nga faaw ñu am benn esprit boo xamante bi ni sa waay dañuy libéré ñi nga xam ñooy supporters yi ak amateurs yi ak amateurs yi mën ci làmb ji bu amee ba jàll làmb man faa jaar ubbeeku mm-hmm. mais mooy lii problème bi mooy que sponsor yi sax buñ gisee yi du ñu sawar mm-hmm. parce que tey ñi ngi xalaat benn face to face bu am seen TV Modou Lo war a ñëw Ama Baldé dugg si ñu toog gisuñu Modou Lo mm-hmm. nga ñu defaat beneen face to face boo xamante bi ni tey Modou Lo Ama Balde mi ngi ci biir arène nationale ñuy xaar gisuñu Modou Lo defaat benn face face TFM di xaar Ama Balde gisuñu ko loolu day découragé loo promoteur ñoom dañoo war a ñëw ñu jàkkaarloo xas-xas loo fii làmb bu fi mënta yegg amut ay Modou Lo Ama Balde mënuñoo jàkkaarloo loolu noonu dañ maanaam ñun commande ñun ci ñun chroniqueurs yi dañ ciy wax dem ba yóbbu làmb ji tension boo xamante ne ni yàggu fa mm-hmm. làmb du diine du lislaam sport la rek nan wàcce xol yi ñu def ko ci jàmm xam ne fii du daanu dee du daanu nangu sa jabar du daanu bañ a ñibbi sa kër <laughs> da ngay daan wala nga daanu kese wala nga nii ayca <laughs> moo mm. daan ta am na solo mais ndax li nga jàngat ni promoteur bi amu ci part de responsabilité parce que bi ñu demee seeti parti Ama Baldé nee nañ ñu wóoluwuñu promoteur bi parce que gis nañ ne que nee nañ mbër mi ak ña fa nekkoon ñëpp dañoo wane position bi nga xamante ne euh, fa lañ far est-ce que promoteur jotul euh, bu même bu fekkee am na ku mu faral sax ñuy làqatu wala ñuy nëbbatu wala ñu koy bañ a fësal mm-hmm. ah, chaque jour xam nga tey làmb dafa xaw a doy waar toorab soxna jaara Aziz Ndiaye bul fàtte ne mi ngi fi doon tëgg làmb gars yi daan nañ ko fi jiiñ Balla Gaye numéro 2 te bul fàtte ne 8 juin 2014 Aziz Ndiaye moo tëggan combat Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier combat royal Bombardier joge mbuur ñëw wéet dakaar lool Balla Gaye duy stade bi yëpp jee daan ko ñibbi Mbour bul fàtte loolu Aziz Ndiaye tëgg na fi yeneen ay combat promoteur yàgg nañ koo jiiñ mbër mais dama moo fi nekk wallaay la sim suñu borom rek mooy joxe ndam mooy xañe ndam dernière décision bi benn la suñu borom moo ko yor. Mm-hmm. tey man mi bu fekkee ne am naa ndam am naa benn turandoo buy bëree ci làmb ñu naa ko Modou Anta sans frontière numéro 2 bëree na 6 combats am na 2 défaites tey man mi di yor kati micro bu fekkee ne am na loo xam mën naa dem ci ay adversaire am jox ko parce que maa ngi seen numéro ñi ngi sama numéro. Mm-hmm. kon ba tey kon Modou Anta kenn du ko daan de mm-hmm. mais nañ gëm loolu parce que ñun accès bi ñu am sax promoteurs yi amuñu ko. man bu ma neexee tey ma añee kër Eumeu Sène bu ma neexee ma añee kër Ama wala Balla wala Lac de mhm. te añee naa seen kër yi ñii ma la limal ñëpp añee seen kër ba tàyyi mhm. Eumeu seen ci koor gi ndekkee naa këram reere naa fa xujja defaral ma reer bu neex di ma tooñ naa may man ak buri kan moo dàq a togg mhm. xam nga yooyu tey ñun amuñu victoire amuñu défaite nañuy am njort yu rafet ci reporters yi am njort yu rafet ci promoteurs yi am njort yu rafet parce que njort bu rafet sax des fois day dem ba maanaam da lay jox confiance mais saa boo dutee diw daf ma daf ma bañ diw dafay indi lii diw day def lii lool mën naa dem ba boo koy yóbbaalee làmb man mën am defet muy ci cas yëpp nag ak mbër mboole mbër moo xamante ni yaa ngi takk ngemb leçon bi pour ñoom ñëpp la ko ayca hmm. am na solo Modou Anta waaye duñ jeexal rek tey jii en tant que comme ñu koy waxee rek reporter en tant que koo xamante ne yàgg nga topp ñaari mbër yi xam nga ñaari mbëri gis nga ñaari mbëri yi état de forme bi nga xamante ne indi nañ ko ñu bëri ne Euh, Ama Balde mu ëpp Modou Lo Ama Balde dem sax bay mel ne ku xeeb Modou Lo taxaw ne su ma teeloon gis Modou Lo du def ci sama hmm. yaram 1000 francs hmm. noo ko jàngatee. bataille psychologique rek xeex ci wàllum xel rek instant yi lañ nekkante gis nga Modou da ne bu ma jàppee bu ma bu ma songee mu jeex bu ma dóoree mu jeex Ama ko bu ma xamoon ne nii nga mel 1000 francs du ma ko dépassé ci yow ñoom ñëpp sawaay dañuy xeex ci wàllum xel rek kenn ku nekk combat bi li nga si def hmm. doo toog fenn di ko wax jaara làmb beneen affaire la. da ngay sumee ko arène nationale plus de waaye cinq mille et quelques personnes di la seetaan sa loolu du caaxaan. Mm-hmm. faaw nga jóg ci sa bopp li ngay takk ak li ngay naan rarement luy daan bër lay doon. Mm-hmm. du nekk luy daan bër lu lay musal ci bët ak ca ak làmmeñ mm-hmm. gis nga jaare fii ku fi gaare ci jamono ji ñu nekk. bët ak làmmeñ moo la gaare. te mënul ñàkk ci doomu aadama képp ku ko ñàkk ku nekk dangay ñaaw. mais ku fi gaare ku nekk moo la gaar. gor soo xamante bi nii tey wax nañ ko lu ko naqari tey. làmmeñ ak ko wax. Mhm. wala bët ko ko xool. Mhm. tey nit tey fi mu ne nii boo amee benn affaire ba ñàkk ko jàppal ne ginnaaw yàlla ak yonente bi bët la ak làmmeñ mhm. mu nekk nag loo xamante bi nii doy na waar torop torop torop torop te tey kenn mënu koo daw parce que nit ñi saa bu xëyee di wax saa bu ñu xëyee di def mënoo ci dara nag waaye nag fii nag suñu ba suñu borom moo fi nekk te yàlla moo bënd wërsëg yi ba pare wuutale dafa ne wallahu faddala ba'dakum baax ba'din fii risqin moo bind ba pare gën a la ci wërsëg yi ku neex lay jox lu ko neex mais boo bëggee dégg dëgg combat bu neex la ñuy bëri man dama séntu combat boo xamante bi nii du passé cinq minutes wala du fa yegg. ayca mën na ko bañ a sax egg parce que comme ni ñu ko waxee ki nga ñaar ñaari mbër yëpp ay attaquant lañ mais tey moo doon tax ba ma doon wax Modou Lo mooy lan mooy lan la war lan moo ko mën a may dara ci combat bi maanaam ba ma doon décortiquer tey Modou Lo stratégie bi nga xam ne war na ko bëree. Hmm. ak Ama Baldé stratégie bi nga xamante ne moom moom moo tax mu war cee mën a génn. waaw man li ma jaaxal bu fekkee ne Modou Lo dafa ne du arrière ci combat bi. Hmm. te Ama Baldé képp ku gëdd nga dëggal sa bopp bu la jàppee mu jeex. Hmm. képp ku mas a gëdd nga dëggal sa bopp bu la fa fekkee def la li mu a def parce que depuis mu ñëw ci làmb 9 euh, février dimanche attention 9 novembre 2008 la ñëw si làmb novembre 2008 boobu ba tey bëreeg Oussou Ndiaye daan ko bëreeg Kati Junior daan ko bëreeg Baypal daan ko bëreeg Bébé Saloum daan ko cinquième combat am nees daan ko depuis boobu ba léegi kum si jàpp ku nekk da daan. Mhm. facilité làmb xam nga tey Modou Lo mën naa bëre mi-temps dem dellu si mi dem dellu si mais Ama Baldé ñaari combat rek moom mas a yegg miita temps moo juumul mooy guy gi ak ki nga xam ne mooy nees mais depuis mu jóge ca ba tey. du bëre une minute wala deux minutes kum ci jàpp ku nekk dina la daan am na kattan koo xamante bi nii man comme li may wax chaque jour parce que jaar chaque jour dama koy wax fii kenn du rey kenn te xaru daganut man lu ma na ma wax mënoo maa ger ma noppi mënoo maa xupp ma daw. li nga xamante bi nii moom laa gis si làmb loolu laay wax. Modou Lo mooy sama favori si combat bii nii. mais dama ne la Ama Baldé am na facilité boo xamante bi nii képp ku ko bëgg a duma ku nekk mën na laa daan ba ñibbi parce que xale la te am na kàttan ñoom ñaar buñ commencé di entraîner no premier octobre ba premier mars buñ summee ko bu ko amaa ëpp doole moo du ko ëpp doole. parce que benn cër yi bokkut. Mm-hmm. seen cër yi bokkut Ama Baldé tey maanaam poids bi mu mën a am. Euh, tey ñu compté ko ñu ne am na cent di kilos cent vingt kilos cent trente kilos est ce que Modou dina ko mën a mais Modou Lo mbër la boo xamante bi nii am na doole mën naa bëree soxor na te du yàkkamti combat te képp kuy jiital pied droit Modou daa aay si moom te képp ku tolloog moom mbagg saa bu ngeen jëflante ba pare. ay supporteram duñ ko duñ ko jéppi quoi franchement. Mm-hmm. am na am na solo moo Anta ñu bàyyi la rek kon eh, ginnaaw bi nga xamante ne kenn nga ñu combat le nga wax sa dernier moo sant ñi nga bëgg sant gërëm ñi nga bëgg gërëm su ko defee ñu joxante rendez-vous beneen yoon incha allah. waa di santaat bu baax a baax rek di julliwaat si yonante bi di wax ne gars yëpp ñu ngi leen di ñaanal ñu ñëw si jàmm dem si jàmm parce que tamit làmb boo gisee gars yu bëri lu tax bëggatuñ cee ñëw dañ si ñëw di ñàkk seen alal moo xam seen téléphone. wala moo xam seen ay carte d'identité wala seen ay passeport wala seen xaalis wala seen oto wala seen ay moto loolu moo tax bëggatuñoo ñëw si làmb parce que am na ñoo xamante bi nii sawaay làmb andiw leen seen bopp kese moo leen andi am na ci dund gi am na ci ñoo xamante bi ni jaare seen bopp kese leen ñor mm-hmm. nuñ mën a defaree ba mu baax ci mm-hmm. seen côté ñu yàq seen moroomu góor dañ koy def mm-hmm. man de wallaay lancim nii may wax ak yow ci njàpp laa toog bu fekkee ne yéene naa nit lu bon wala lu ñaaw wala lu négatif yàlla naa ci jiitu bu ma yéenee nit lu bon yàlla naa ci jiitu muy lu baax yàlla naa ci jiitu parce que tamit affaire bi des fois ci xol bi lay doon. Mhm. tey ñu ñii ñëpp a si yem mhm. gis nga dund gii moom kenn ku nekk marchandise la rek képp ku ci régler perte laaj ko sa xol wala nga laaj ko sa yaay. Mhm. jamono ji nag foofu la tool boo tollee ci jamono joo xamante bi nii da ngay fekk gor soo xamante bi nii dalaa gën a set wicc. nga taxaw di ko yàq te defu la dara. da nga koy gis rek na Baye Sall neexuma daal tey daal lu ma xëy dinaa ko wax Baye loo ko yàq xeeb ko. grand place boo dem deram du fa rafet koñ boo dem deram du fa rafet foo man di nekk fu nekk da nga koy xas tuutal ko ngir yow nga ko loolu du jëmale nit kanam mm. chaque jour tey fi mu ne nii da ngay gis mbër yoo xamante bi ni depuis 2005 ñoom Balla Gaye 2 ñi ngi ci làmb ji mm. di ñafe di góorgóorlu nga gis benn reporter boo xamante barki Dembo Ndiaye la ñëw ci làmb am ci 300 mm. am accès pour wax rek bëgg a taxaw noo bala gay nekkul ci dara noo Balla gay màggat naa Balla Gaye nii Balla gay naa te yow tey ba bala gay di wax ci télévision boobu wax dafa jafe boobu da nga doon fay pour wax ba muy dund di am kër ak oto di yóbbu papa màkka di yóbbu yaayam màkka boobu kenn xamula mm-hmm. comprendre nga tey am na si gor yoo xam ne boo leen bëggee yàq yow da ngay mm-hmm. parce que ba ñuy man mënoo ba ñuy juddu judduwoo ba ñuy siiw siiwoo ba ñuy am kër amoo kër ba ñuy am oto amoo oto kon nag faaw ñu dellu si waat suñu bopp xam ne ñun ay jullit leen lépp loo xam ne suñu borom def na ko ci nit nañ ko ko yéene bu baax a baax a baax jaar di la santaat bu baax di la gërëm di nuyu sama gaa yëpp di nuyu Makan Beng di ko siyaare bu baax a baax Fallou Fall Galso 94 ñoom moo njaay directeur xam nga Aliou borom Ramdan kutiir maa ngi koy siyaare bu baax a baax a baax ñoom Abdou taal bu xarañ doo maa leen di siyaare bu baax a baax a baax jaara Aïcha mu doonte kontaan nañ balaa ñuy tëj rek tey sa dernier moo ci ñi nga xamante ne ñoom ngay liggéeyandool hmm. mën naa ne ñooy sa deuxième famille ñoom gay nekkandool saa su nekk muy suñu nawle yi nga xamante ne ñoo bokk métier bi muy reporter yi hmm. waa ñu rafetalaat rek jaara sa waay coow li bari na comme lii ma lay wax chaque jour hmm. tey da ngay ñëw benn Pikine wala nga ñëw benn Géejawaay wala benn parcelle ñuy néewal doole sa confrère nga taxaw fa leen du ma si dugg comprendre ñun dañoo war a solidaire solidarité dafa baax ñu dokkuteen ñooy laxasoo ay got chaque jour ma koy wax tey boo ñëwee keroog rek def nañ ñu ko kër Modou Lo benn gaan damay fàtte tur bi xam naa ko baax ñu ñëw benn brodé di ko nekk foofu ay booy filmé fi mën na ko sa waay ñëwal nga def fa sa liggéey fii kenn du la fi def dara ñun képp kuy xeexa ñun ñun bu ñu neexan léegi réew mi tàkk mm-hmm. wallaay lancim 15 site internet buñ jaxasoo woon fii bëgg a mi am na loo xam ne buñ ko génnee musibaam mm-hmm. jël nga mbër wala nga jël benn benn amateur wala nga jël koo xamante day wax si làmb ba taay mu petoo yow ne la dimbali ma nga daggal ma lii. Mm-hmm. nga dagg ko génn ko te bu la neexan nga weer ko. tey fi mu ne nii fawu ñu booloo benn booloo boo xam tey bu dajee ci benn lieu ñuy néewal kenn doole ne kenn taxawee na le ba fexe ki koy néewal doole. mu mm-hmm. filmer ko ba xam ne diw la. Mm-hmm. ñu dénoncé ko ba ñëpp xam ne kii la. parce que nag réew mi am na yoon te képp koo xamante def na la lu la wërta def moo xam dañ laa dóor wala dañ laa saaga wala dañ laa néewal doole. béré bu àtteekaay bi ñëpp xam nañ ko. Mhm. xamal ki la ko def xam nim la ko defee nga xam ban liyee la ko defee ak ñan ñoo ko fekk woon. buñ solidaire nag ànd suñu biir boole woo def benn say kenn mënu ci ñun dara waaye jàppal ne benn mat saabu bu ko day neex a damm mais téeméeri matt boo leen boolee takk boo damee du dam nan gën a àndaat te xam ne fii ñun ñoo fi mujjee ñëw suñ papa As Mbaye jaar na fi Ablaye Naar Samb jaar na fi Mansour Mbaye jaar na fi ñoom bekkaayam ñëpp jaar nañ fi te lépp rafet. dem nañ ba tuddantey doom am ci kër am ci oto ma iñaane la yóbbu ma fenn ma soxorale yóbbu ma fenn nan wàccaat te xam ne ñoo bokk liggéey bi terrain baa ngi ni yaatu na lépp lu man sa lu sa waay man na ko def boo manee pour progresser sa site yëkkati ko niveau bi yéeg ci kaw def ko terrain baa ngi ni moo gën nga teg bët benn doomu aadama boo xam ne defu la tus mi ngi yor site internet am di liggéey mhm. nga koy waxal lu la leer ak lu la leer da ngay dem ba da nga koy sosal bu yàggee sax da ngay ñàkk fayda ayca moo daan te vraiment kontaan nañ am nañ amoon nañ ak contentement bu baax a baax jàkkaarloog yow ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant mhm. di wax ne que on est fier de toi bi nga nekk nii macha dañ la cee naw weg la ci respecté la ci te gis nañ ci sa taxawaay yal na la yàlla sàmm yàlla dëgëral la kàttanal la ba ñu dégg la fu allah waaye dañuy gërëm Sa Touba rek moom tamit mm. nuyu ko bu baax a baax chéri Ndey Penda di ko ziar di sàkkuwaat mm. ñaan waxaat ko mu gën a yokk ñaan yi bu baax a baax alaaji Sa Touba borom coole borom waaw mi ngi noonu borom coole xam nga ñun nag maara yi baax mm. di leen ziar nuyu suñu soxna suñu chéri Mati nuyu <laughs> Modou Baye Fall nuyu ñëpp <laughs> euh, automobile Modou Baye Fall moom tam muy nit ku baax ci ñun bu ñëwee ba passé dañ koy nuyu Modou Anta di la jox jox rendez-vous très prochainement rek si yeneen jotaay. incha allah sur Medina TV. Hmm. ayca jërëjëf di leen jox di daje rek ba beneen yoon di wax gars yi nag nañ abonné. abonné parce que kii wax kii déggee mboppam. dëgg neexul wax dëgg yàlla kii wax kii dégloo hmm. partage leen li yey ngeen abonné. TV suñu chaîne mu mën a jëm ca kanam incha allah. ayca jaa ngeen jëf merci.